Assalamualaikum wa rahmatullahi taala wabarakatuh. barakaatuhu mbokki julit yi mbokki taalibe yi ñing leen di nuyu leen bu baaxa baax yaakaar naa ni ku gis mbooloo mii nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo kolobaan ak seen waajtaay wi mel ni jullit buy dajeek noon bu muy xareel daana tegtal ni ndigal jóge na fu mu war a jóge jëm ci ñu mu war a jëm ndax daa mel ni mm, nit ku nekk am nga xel am nga xalaat waaye ngir bañ a juum da ngay am cëslaay cëslaay loolu nag mooy ndigal fal isnu sartun i xubooli sax ni maanaam li ngay def nga teg ko ci ndigal day tegtal ni loolu ab sart la ni yàlla dina ko nangu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yokk kàttan euh, comme nañ ko xamee ñun ñëpp ni jëmmam rek soññee la ci kum jiite ku nekk ndax sëriñ Saliou Mbacké ginnaaw bu yàlla defee coobareem ci jëmmam euh, fekkoon na ko mu yanu yan bu diis waaye bi mu demee ngir bëgg lu gën a taaru daa mel ni koy door a takkaayuwaat ngir waajal ngir bëgg fas yéene lañ ko bàyyee mu jëm ci kanam li alxuraan ni woon inoo la sikrun lakk wali xawmik fa sawfa tus alun yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam daf ne ko liñ la batale eh, nanga xam ni responsabilité la boo xam ne yaa ko yanu ak saw ñooñ te ëllëg dinañ la laaj nan ngeen koy doxalee ngir bañ liñ la watta watt bàyyee nag am benn benn benn naax wala benn njuumte day war ci ñi ko siq ñu ñu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax te di ko waxtaane di ko tër cim xel loo xam ne ci ndigal lay lay taayoo ku gis waajtaay wi rek di nga xam ni itte ji lenn rek mooy ndigal li ñu sëriñ seex jox ngir ñu jëm xel kom ngir war a li tool ya fa nekk. Serigne Saliou barab bii ñuy àgg nii di wàcc muy xelkom fii la daan wax ni saa bu fi ñëwee toog day yëg woyof yëg leer guy wàcc ci moom yëg wér ci yaramam ba sa ñoon àddunaam bépp ci la koy defee waaye xam ne li tax jëmmam di nekk yeneen barab loola dogalub yàlla la te loolu taw it saxal na ko ni. nit ki day melni ni xott la ki koy bumax du kenn ku dul sun borom bi tabaraka wa taala serigne cheikh moñu ko digal ngir bëgg ñoo boole ci bopam xel ko moy cër bi gëna reuy mu jox ko donga yi ni nañ bacc gerte gi jëri ko roñ gerte gi ngoñ mi leen lu nekk ñu ber ko bi muy jup dañoo xamoon ni loolu laaj na waajtaay te sëñ Saliou daf daan wax naan liggéeyal sëñ touba kenn du ko tàmbalee ci yelwaan motax ci ndimbalam yalla dimbal nañu ba nim ñu ko digale lépp na ngir nit manal bopam nak fokk dang koy jëm lo dara mu bañ ko wër ci kenn daa mel ni ku la gën a ñàkki pexe moo lay ëppi pexe moo tax sëñ lim ñu jox bàyyee ñu suñ boppam boppam suñ bopp ngir taaral ñu rek la ci jublu boo gisee nii bi ñuy door egsi gis ngeen ni ñu ngi séddale fourchette yi rado yi jumtukaay yi nga xam mom moom la ñuy songe naaf yi keroog biñ tàmbalee rek daanaka ci la ci la leen mujjee gis daaru ji ñu nekk mooy daarul xuddoos dañ ko def ñetti daara ñun ñuy fare sowu muy daaru ji ñu nekk mooy daarul xuddoos beneen bi ci des mooy Touba Xelkom beneen bi ci ndax dafa ni nit bu wujju rek day tax liggéey bi gën a gaaw waaye nag lépp benn la wuute gi nga xam ne ñoo bokk leen luñ jëm loolu la bi sallallahu taala alayhi wa ni woon yërmande la ngir ku wut ak ma samba di nga mëneeg ma demba waaye nag na fekk ma ak ma demba yépp jëm ci lu baax gis nga biñ bàccee tool yi ba noppi gis ngeen ni ñu jëree gerte gi ren nag liñ doon ñaan yàlla am na mooy gerte gu bari dañ doon ñaan yàlla xiiwal gu baree baree baree bari ci gën a gerte gi gën a yokk yokku na waaye tamit yàlla yokkaal nañuy kàttan ba tool yi yépp boo gisee ñu ngi ko liggéey ci juróom benn fan roñ gerte gi roñ ngooñ mi ber ko sëriñ seex mam sëriñ Saliou keroog bi ñu noppee li mu wax mooy dama woo ne ma nañ xam ni ñun ñu doon liggéey dañoo war a jàpp ne dañoo demoon jullit yu xareeg noonu la ba gañe ko ba war a dellu daa am noo war a delloo jullit bu gañeb noonam buy dellu day sàbbal wala day sikkar mel ni ku jóge ca eh, xarekaay ba ba gañe waaye waroo mel ni ku jóge ca barab yi ñuy fowe di tëgg ko yooxuloo wala yu mel noonu ñaareel bi tamit nañ xam ne yaakaar jim am ci ñaan yëpp ci liggéey bii la ko fas ñun tam nañ ci fasal suñu bopp fasal ci njaboot gi te xam ne jublu jubluwu ci lu dul suñu njariñul bopp ñaareel bi ci des itam mooy ànd nit ñu jëm ci yàlla day yomb seytaane seet yoon wu ci jaar loolu tamit nañ koy bàyyi xel bu baax waaye xel kom moo miftaahu kulla fadilatin lil muslimina mahonata razaqi daa mel ni lu waay mën a am ci xam-xam lu waay mën a am ci baax lu waay mën a am ci daraja bu ñëwaatee fii dara ji jooju gën a yokk baax gën a yokk lépp gën a yokk donga yi nag buñ ko waxee mooy ñi sëñ bi yaroon ñoo war a jiitu ci lépp ngir ñoo war a gën a xam yoon wa ànd ci ak ñiñ bokkal pas-pas waaye nekkul lu ñuy yalwaane nekkul lu ñuy wute dara nekkul lu ñuy jublu ci leneen ñaareel bi nag mooy liggéey bu xisee ba am fokk day laaj ci ñi koy def ñu xool nag léegi comme liggéey am na niñ koy doxalee nañ koy seet bu baax di ci bàyyi xel ndax seytaane buy def la lay digal boo xisee bay def nag mu siit tiqi tiqi yum ci boole waaye daal bu ñu xoolee bii nga xam ni Euh, bàcc bàcc la jëri roñ gerte ñi nekk ci waañ wi gis nga waañ waañ wi ni mel ñuy togg togg yoo xam ni daa mel ni bi ñuy sëriñ bi gàddul suñu bopp sax liñ man léegi mënuñu ko woon ndax booba xañ na daan nañ lekk leneen waaye fi mu toll gis nga ceebi ndawal la ñuy lekk ay domandaa ay maafe lekk yoo xam ne dafa dëpp loolu ñu war cee gën a bàyyante xel ni comme nii ñu ko doxale ren nga xam ne dañoo ber dalub jigéen ñi nii dal dalub góor ñi nii lépp loo xam ne ci diine la la jëm li sariya santaane da koy laytaay mooy góor ak jigéen ñi waruñoo jaxasee julli sax mayu ñu leen ci comme mayu leen ko ci julli mayu ñu leen ko ci jihaat duñ leen ko may ci yeneen liggéey yi loolu tamit dañ koy bàyyi xel bu baax ndax daa am lu ñuy jàngale ci ñi te ñu ku xamut lu mu ñu gis day jàpp loolu yoon la ngir jige woon gi ñu jige sëriñ bi alxuraan dañ woon daf ne woon man yaati min ko na bi fahisatin mubayyinatin yu daaf la alxasaaba di fay na wa kaana dalika ala llahi yasir yonent bi moo tax ba ñu ni ko yow sa waa kër luñ def ci njuumte duñ ko bind benn njuumte waaye ñaari lay doon ndax benn njuumte bi mooy bàkkaar bi ñu def ñaareel bi mooy yow mi nga xam ne yaa war a jubal ñëpp boo ko seetaanee day mel ni yaa ko yoonal kon tamit ñun ñi nga xam ne moo ñu yar ñu bàyyi ci xel bu baax a baax liggéey bi nag niñ ko doxalee lu yomb la mooy dafa am ay ay dañ koo def ay xaaj ay xaaj ñenn ñu nekk am luñ jiite kenn ku nekk lam jiite nag dañ la ko bàyyee xamal la ni la loo ci war a dem ba lott ci nag ñu ko yëgal bala nga ciy dem ci dimbalul yàlla ak tawfeexam ak daraja yi sëriñ bi yàlla dimbali nañu ba lépp yegg na lépp jàmm am na ci lépp xéewal am na ci liggéey bi daal ngi nii ñu fas yéene ci bokk ak ñëpp fii lañ ñëwoon bi ñu koy woote nañ ko wootee woon rek laa leen wax waxoon ne eh, sëriñ bi dafa wax ni ëpp sëriñ boo ko amee dee ko liggéey loo loo loo dee liggéeyal loo man bil bas bi wala xidmati mastataxta loolu nag duñ ko bàyyi ba ëtt nay tukki amuñu tànn amuñu xalaat te fii nga ñu gis ak poussière bu bari bii luñ am ci jàmm moo ñu ko may fii lañ la nit ñi woon fii lañ fàggoo xam-xam fii lañ amee yar fii lañu amee leer ñu di ci woo mbokk yëpp nag ñu di ko ànd ak ñun te xam ni sëriñ bi bëgg lu ñu lu jàmm te ñoo yem ci xel kom waaye ren ni mu jàppandi nii ci juróom benn fan ñu liggéey ci lépp war nañoo war a bàyyi xel ni daara yi ci yëpp war nañ koo mën a def ci kaw buñ ci diisoo dëppoo ci xalaat ko xam ne dana yomb ci ñun lool ndax ku sëriñ bi liggéeyloo ñoo ci gën a yey ndax sëriñ bi yaroon nañu ci te xam nañ ni muy demee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bu noppee nag di ngeen gis jëwriñ par benn benn mu indi ciy leeral ñu bokk déglu tañ xam ne ñii duñ wax ci bakkan lu wax rek waxi sëriñ bi la te sëriñ bi lu mu wax waxi yonante bi la te yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam lu mu wax waxi suñu borom bi tabaraka wa taala noo ngi sant sëriñ Touba di sant sëriñ Saliou Mbacke mi nga xam ne mii moonu tax a ñëw fii ci koom nuy liggéey te lii dañu koo yàgg a bëgg te mënuñu koo am noo koy sant di ko ñaanal yal na yàlla yokk leeram xel koom gii nu ñëw mel na nu danoo dee ba tàbbi nanu àjjana ndax dañu koo yàgg a bëgg te amuñu ko lii lu nu bëggoon la kon sëriñ Saaliw mënuñu koo fay xanaa di sant di ñaan di gërëm te lépp lu mu woote nag noo nga ca nun murit murit moom ndigal ñaq ñuqi loolu rek lañu soxla mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen sant te di leen siyaar bu baax baax ci liggéey bii ñu nekk ci xel koom ñun ñi nga xamante ni ñoo féete daaray daaru tanzil yàlla dogal na ñu nekkoon ca daaray tanzil doon fa liggéey liggéeyub sëriñ Murtada waaye ñu wëlbatiku démb liggéey booba jeex ñu ñëw fii nga xam ne mooy mooy daaru xudóos fas yéene ànd ak suñu mbokki dong yi ci liggéey bi nga xamante ne ni moom nañu sëriñ Seex Mbàkke sant fii fii ci daaru xudóos ak Touba Xelkom ak daaru salaam kenn ku ne nag ànd ceeg pas-pas ànd ceeg pasteef fas yéene liggéey bi ñu def ñu def ko ci anam yi mu gën a selle dem gën a rafetee sàkku ci ngërëmal sëriñ bi ba tax na ñun ñëpp ànd nañ booloo takkatoo booli suñ lépp booli suñ pas-pas ak suñ pasteef ak suñ xéewal ñëw fas yéene taxawu liggéey boobu ba lépp sotti barki sëriñ Saaliwu mbàcc mbenn bi moom jaar na yoon tabarkaal la organisation bi gën naa mat lépp lu doon erreur daaw rectifié nañ ko ren ñuy sant nag taalibe yi jóg ni ñu wuy si ndax bu ñu yowul woon ñu am soxla bàcc bi dina yàgg waaye ñëpp ñu wuy si ñoo ngi sant sëñ Touba bu baax di sant sañ Saaliw di sant suñu baay bi nga xam ne moo ñu nàmpatal ci lii ndax fekkee ko doy na sant yàlla bëgg ko doy na sant yàlla waaw ñuy gërëm nag taalibe yi di gërëm ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo ñu boole ci seen liggéey bi ñuy ànd di yëngook ñoom waaw di sant sëñ Saaliw amul benn jafe-jafe nekk waay bi baax na mucc na ayib amunu benn jafe-jafe xiifunu marunu noo ngi sant te noo ngi liggéey di ñaq di barkeelu amuñu fi benn jafe-jafe kontaante rek la am kontaante la am te ku fi ñëw ren yal nang fi ñëw déwéni déwéni déwéni déwén yal na yàlla wéral teri ñëpp guddal fan yi ñëpp yàggal taxawaay te yàgg leen am mën lool lii ngeen di def yéen it yàggal leen ci liggéey bi yàggal na ci yoonu sëriñ Touba yi nun ñëpp sëriñ Sidi Maxtaar Mbàkke yal na fi yàgg ak nun te wër nu yàgg fekk moom te wër ci barke yonent bu tedd bi kontaan nañu lool ku sant rek santaale nga say morom yëpp noo ngi sant. démb bàcc bàcc mi lañ ci lañ nekkoon njëriñ mi tamit tàmbali woon nañ ko démb ba nga xamante ne nii sori na tey jii tamit ñu ngi continuer ci njëriñ mi boole ko roñ ngooñ mi fas yéene ko yóbbu kër ga. kon jàpp naa ne tool yi lépp mi ngi doxandoo muy mbàcc mi mi ngi dox njëriñ mi dox na ñu ngi ci roñ mi kon jàpp naa ne liggéey bi lépp commencé na dox. kon nañ jàpp ne sëriñ bi lii rek la bëggoon ñu am pas-pas am pasteef ba lépp lum ñu sant ñu mën koo doxale nam ko nam ko bëggee ñu làq ci ngërëmam kon nañ sant yàlla bu baax ba ñu sëriñ Saliou Mbacke tàggatee eh, nampatal ñu ci lu baax xamal ñu lan mooy liggéey sëriñ Touba bañ mën koo jëf tey ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal ñëpp yàlla nañ fi teew ay déwén yu bari te ànd ak mucc xew barke sëriñ Saliou jërëjëf fu ay nit di daje nag ñaari ñaare day laaj ñaar yii mooy lu ñuy xéwloo gis nga oto ndox yi ak ñi nekk ci waañ wi day laajaat leneen mooy kërug docteur docteur gu ñuy fajoo moo tax am na ci ñun ñu bokk ci ñun ñoo xam ne ñu ngi nekkoon fii ci camp bi caserne Samba Diéry Diallo ñoom itam ñu ñëw ñoo nekk ci baas bii ngay gis ku wopp ku nekk am nañ lu ñu lay faje nga xam ne ci ndimbalul yàlla yàlla dimbal nañu ba amul benn gàllankoor boo xam ne am na fa ñaareel bi rek li ci xawoon a jafe dëgg mooy wata yoo xam ni dina mën a dugg ci biir suuf si di génne ngooñ mi loolu tamit loolu laa la laa xam ne am na ku ñu ko defal koo xam ni mën nañoo wax ni bokkuñu woon nekk ci daara ji mooy Serigne Abdoulaye Ndiaye moom moo ñu aal wata yoo xam ni bañ na ko ba tamit sax boo xoolee waa kër Serigne Saliou la ci bind kenn la ci moo ñu waa aal yoo xam mën naa dugg ci biir di génn ngooñ mi te loolu nag lañ gën a ittiwoo daa mel lu mu gën a bari rek liggéey bi gën a gaaw beneen bi ci des Serigne Saliou moom Serigne Abdoulaye moo ñu fa fekk jox ñu addi ju am solo ñaaral bi serigne Abdul serigne Fallu mom serigne Abdul Latif jox ñu adde ju am solo mam Balla mbacké té ñoo ñëpp boy xol ci daara ji lañ nekkon ak serigne Abo mom serigne cheikh mom serigne sariwo kon nak dafa melni kon liggéey bi liko sotal sottal donga yi la barab nak bu amé lo lek am fo tudd am fo fajoo té té ndigal la liggéey gi day jàppandi lool. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi ni mbokk julli yëpp ak mbokk talibé di len ziaré baaxa baax di doole sante baaxa baax baax ci ci ci taxawaay bi ngeen taxaw ci caméra bi li mata mat a leeral mooy liggéey sëriñ tubaa bi maanaam li ñu mën a leeral liggéey sëriñ tubaa bi mooy ci li yëngu nii muy kafe gi saa suñu xëyee ci guddi gi bu suba ne seeglu mat bëri go, jox ko jaamu yàlla yi ñu xëy ndekkee ko jaamu yàlla yi dem ci tool yi bu bu ci ci ngoon ay 5 ñu ñu ñu ñu ñu kiyaan ñeent ñaari ñaari mën a yóbbu yóbbuwaat ko ca jaamu yàlla ñu naan ko loolu daal bokk na ci li nga xam ni mooy mooy mooy taxawaayu kafe gi chaque jour daal nañ nañ nañ kii ñaari bërigo kafe waaw ñaari bërigo kafe ci jour bi ci ngoon gi suba gi ci suba gi ak ci ngoon gi loolu daal moom bokk na ci li ñuy li waaw bu ñu koy jox 6 heures lañ koy lañuy ñuy tàngal ko sa ñu jox ko jaam yàlla yi ñu jóg dem waaw ak mbiskit ak ak mburoog yëpp ciy dem waaw loolu daal moom daal mooy suñu taxawaay ci ci kafe gi waaw ñun ñoo jël yóbbu ko jox ko jaam yàlla ci tool yi waaw ñu xewaloo ko ba mu jeex ñu indiwaat fi Sénégal pour suba waaw daaw daan nañ kii ñaar mana ak benn bëriwu waaw kii ci suba gi waaw yokkute am na ci waaw yokkut daal am na ci ci ren gi moom waaw loolu daal ngi sant bu baax di ci ñaan ak yokkutewaat déwén waaw dinañ ci sant bu baax baax di ñaan suñu si mu yàgg fi di ñaan yàgg mu yàgg fi di ñu ci liggéey bi ñuy liggéey bat moom tuwaa ñoo ngi ziar mbooloom yëpp euh, ci liggéey bi ñu fi di ñaan nangul antenne médicale bi euh, dañ ko taxawal ngir gis ne bari na ñoo ay dañoo am ay blessure am ñoo xamante ni peut être des fois seen yaram bu tàng fièvre fekk leen fi ay coup de chaleur donc dañoo préparé antenne bi ci cas yi fi mën a am euh, mooy euh, ay blessure ay coup de chaleur euh, ou bien ay ay tout provoqué lu mel ni poussière beeg yooyu yooyu daal lañ préparé woon ren mais gis nañ ne peut être dans l' avenir mën nañoo def ba def poste bu gën a yaatu boo xamante ni dañ ci mën a fajaale nit ñi ak seen i jafe-jafe yoo xamante ni dañ ko fi ëndaale sax loolu moom mooy euh, xalaat bi li nga xamante ni pour euh, déwén ñu xool nuñ gën a yaakale li yaatale liggéey bi tay presque 24 heures on a 44 cas 44 cas li ci ëpp nak moy ay blessure moy manam euh, nit ku gañu ci li mu liggéey rato bu gañu wala dara loolu daal moom mo ci ëpp leneen li moy amna ci nañ cas de fièvre bo xamanteni nit ki amna na 40 degré ko bu géré nañ ko fi ba sur place benn cas daal lañ am ci 44 yi bu ñu référé à l'hôpital euh, Touba Xelkom des problèmes respiratoires koku lu mu ëndaale fi la euh, ñu yóbbu ko hôpital bi mais à part ça les 43 yi fi Euh, ku nekk jafe-jafe bi nga am surtout ay buri buri épistax yi maay nit ki boobu ay bakkanam di wóoree yooyu yëpp géré nañ ko sur place donc euh, pratiquement daal on n'a pas eu de problème am benn problème liggéey bi daal li nga xamante ni moom lañ amoon ay objectif am nañ satisfaction presque à 100 pour cent mooy amul benn cas de boo xamante ni fii géré wuñ ko wala benn cas de fièvre yooyu amul benn lu fi am loo xamante ni géré wuñ ko ci ci ci de permissão. amila salihan fali nafsi, murid yi bari nañ jullit yi bari nañ waye tay ñi fi nek la sëñ salih tan ngir ñu liggéeyal ko fi dal ku sa fajul mënoo fay jëf na leen wër ne fi ñew sa aji do faju ba nopi ndax barab bi serigne bi da ko sak ngir faj aji muridi. murid yi ku sa aajo fajul mënoo fay dugg bari na nak lu way di ñaan te gisee bul japp mukk ne ñaan gi dafa nangul sëriñ Saliou noon na nañu ñaan yàlla ci xéewal yi ku tabela ti lim yor defee ko dara barab bii nag fajukaayu xéewal la ku sa aju fajul mën a fay jëf kon nañu rafet njort di gën a góorgóorlu li ñaan mooy ku ci bokk déwén yàlla nga ci bokk ku ci bokk ren yàlla nga ci bokk déwén te bay ñëw sa mbokk moo dendal nga woo ko ma ànd yow fii daal ku fi indi sa mbokk tàbbal nga ko àjjana barab lu ma xam ne lu fay jëf ñu fulal la ko kon nag ñu ngi leen di sant di leen soññ ñu gën a góorgóorlu aousu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jërëjëfate sëriñ Saliou Mbacké sëriñ Saliou ñoo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala doole ay leeram te tas ñu ca barkeem ba ñaan si Ahmadul Mbacké suñu borom guddal aw fanam te wér ay cëram ba naal bu mu am ci liggéey sëriñ Tuubaa bi suñu borom ko jul kawe njortam noo ngi santaat yàlla bu baax tabaraka wa taala ci teew gi teew ci tool yi ci ndigal Serigne Cheikh ànd ak suñu jëriñ yu baax yu tedd Serigne Abdou Ndiaye ak mboolem daayira eh, raison yi bu mu doon tey jii nag nun noo ñi nga xam ne nii nooy daayira bi nekk Louga te sunu jëwrin di Serigne Cheikh Nafal nekk nii suñu wet ànd ak Serigne Baye Diouf nii ni ngi nii ànd ak mbokki mboolem taalibe yoo xam ne ña nga Louga nu ànd ak ñoom ak xarit yi ak wëlër yi ak am di jàmm yi képp koo xam ne am nga pas-pas barkeelu ci liggéey bi nu ànd fii xel kom eh, ci liggéey Serigne Touba bi eh, barkeelu ci noo ngi santaat yàlla bu baax a baax nag teew gën fi teew teewaale nañ képp koo xam ne aman nga pas-pas ñëw te suñu borom mën loolu ko eh, noo ngi ñaan lépp loo xam ne ni jëf nañ ko ci sunu borom mm, fay nu ko te te te te fay googe mu boole ñu ko ñu amoon pas-pasum ñëw te mënuñoo ñëw eh, liggéey bi nag comme ni ko ñëpp waxee rek daanaka noonu lañ koy waxe eh, naan bu dee yokku mar da ngay naan tuuti ndax yaakaar naa njëriñul adduna ak joj alaxira barab bu fekkee Euh, barki démb rek maa ngi koy nettali li suñu ëbogey waxoon na ne amoon na suñu ëbokee bi amoon na ñett ñu mu àndaloon ñoo xam ne ay mbokkam lan keroog bi ñu ñëwee ci daara ji euh, siyaar suñu sali ba bëgg ñibbi sëriñ bi di leen a man manee ba na fanaan ba timis jotee ban julli timis ba noppi woo suñu ëbo ne ko euh, boo gisee sa nijaay yi ma di leen téye kenn ku ma soon a fanaan ci daara ji tey sunu borom tabaaraka wa taala de defal nañu tawfeexi barab bi képp ku ci fanaan donte génn génn guddi la euh, euh, jaamu yàlla fukki at ak juróom yi sunu borom nangu sunu borom wecce na ko génn guddi googee daa ne ko te sa kenn mus cee fanaan loo taxoon ma bëgg ngeen fanaan ci daara ji kon yaakaar naa xelkom la alaaj loo waxoon rek fi ardi xel kooma waxdallahi an jasahu li saalihiina kama yarwihi kutaabu ardun munawwirun xalbal muslimina bi la sakkin fa man sakki li na da dem ba xel koom kon yaakaar naa suuf si ak barab bi li mu làmboo ci ay ngëneen lamboo ko ci ay ay ay daraja ak i martaba yoo xam ne nit mën naa jaamu yàlla la sëñ Tuubaa wax ne bi laa xalawati wallah ci xasida yi dafa nekk ci barab bi ñi ko dëkkee nag ñoo yéeme ndax la sëñ Tuubaa waxoon ne ña toppoon sëñ Tuubaa ci njaaree ñëpp ñu ngi ci barab bi barab bu sell lay doon barab bu am tawfeex lay doon barab bu neex a sàkku ngërëmal yàlla lay doon kon loolu ñoo ngi sant yàlla ba ànda suñu jëriñ yu tedd yi nga xam ne nii waxtu wu ne ñu ngi di dajale mbooloo mi ngir liggéey Sëriñ Tuubaa bi rek ñoŋ ñoo sant bu baax di ñaan diggante ñoom Sëriñ Tuubaa defal ñu ko te defal ñu ngërëm Xelcom fii toole xaadim waxtu wuñu wootee ku murit ne ci réew mii war la koo wuute loo jàpp bañ woote bàyyi loola wuy ji ba ñëw boo dellu see xam ne te nag satadoo wuute góob ak gor ak mbojj mbàcc ak njëreg dajale seex buñ ko sant bu wootee dem ca bul wuute wooy jël murit te fas ci liggéey bu mucc ak jariñu ak yokk fa te boo jëf bul jëf tuuti murit bu xëy gontu xel koom am nga yoolu ko aj aj guñ nanga wuy xel koom xaw mu luñ wuute tey sëriñ Saliou li may wayaan tey li wàcci laayi mooy nanu am taw feexi doon jumtukaayu xëy abada li may wayaan tey li wacillaayi nanu am tawféexi doon jumtukaayi xëy satol abada sëriñ nan di sareet di tëlëkteer dooni fas di masin di nag di kang foore di milliard di téere di daa di architecte di ciment di suuf di ndoxit dim xel di kattan te neex ni afra aw ndamada يا رب سلي بتسليم على سندي ولا لغشا بمن قد وقودا أبدا أدبرم لك أكتب برب الماء جلال ما asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di ziar yéen mbokki julli yi yéen mbokki taalibe yi kenn ku nekk ñoo ngi koy ziar ci turam ak ci santam te di leen ñaanal seriñ Touba yokk leen ndam ci liggéey bi nga xam ne moom leneen Serigne Cheikh Saliou jox ñu nekk fii ci xel Xelkom nag nekk ci waañ wi Serigne Abdou Ndiaye dénk ñu liggéeyu waañ bi ñu fas yéenee bigal mbokki taalibe yi ak mbokki jaam yi. yàlla mi ngi dogal ñoo ngi départ le 8 Dakar ñun ñoo fi jiitu si mbooloo mi ndax waañ moo war a jiitu si ñëw daal di installé keroog bi yàlla dogalee ñu jiitu si mbooloo mi war a départ ajjuma la onze ñëw wax dëgg yàlla bii ñu jiitu see def nan tànn nañ lu tolloog fukki cin ak juróom teeru mbooloo mi mu ñëw ñu tasaare ko ñu reer bi ñu xëyee suba nag ci añi def nan doma daa ndawal boo xam ne wax dëgg yàlla bigal sekkeen yi ak jaween yi ñaar fukki mbana ak ñett lan taal ci ñànktaŋ taal ñaar fukki mbana yi fukki mbana ak juróom ci ñeex loolu lañ ubbee guddi gi tamit dinañ taal set mbana yoo xam ne reer lay doon noonu daal lañ ko jàppee ba waxtu wii ñu toll nii. wax dëgg yàlla dañoo teg programme boo xam ne daal programme bu mucc ayib la ndax bu ñu xëyee suba 7 heures dinañ jug raxas mbana yi taal góorgóorlu ba nga xam ne bu une jotee ñam yi dinañ ko yóbbu ci biir tool yi bu ko defee ñu mën koo jotal mbooloo mi nee naa la bis bu njëkk ba ñoo ngi jënd aw nag tëral ko rey ko. togg domadaa boo xam ne wax dëgg yàlla bi ñu ko yóbboo ci tool yi mbokki taalibe yi am nañ ci mbégte ak kontaan xam naa ne moom loolu sekkeen yi ak njaween yi ñoom lañ koy jagleel ñaareelu suur ba tamit ñu defal leen ceebu jën boo xam ne moom la Sénégal xam ceebu jën bu mucc ayib boo xam ne wax dëgg yàlla tamit bi ñu demee ci tool yi ci waxtu une heure woowu noonu ñoom tamit bég nañ ci ñetteelu fan bi tamit ñu joxaat leen maafe ndawal moo xam ne wax dëgg yàlla kontaan nañ ci am nañ ci mbégte tey tamit ñoo leen defal ceebu ndawal boo xam ne incha allahu rabbi bëgg nañ mu saf ba nga xam ne plat yi ñuy defar yëpp kenn ku nekk boo toogoon sa biir kër sax plat boobu noonu doo ko mën a jot waaye nag lépp génnul ndimbalul sëriñ bi ak tawféexi sëriñ bi ak ak ak teraangay sëriñ bi waaw bis bu seet boo calculé ndax añ di nga taal 23 mbana reer nga taal nga taal 17 kon loolu dalay lay dikkee 30 euh, et quelques mbana daal bis bu set ci loolu moom moom moom la ñuy taal waaw ndax li fi nekk ci mbooloo dafa dafa xaw a takk su ma nekkee ci waañ bi di togg nan la may def damay damay jox mbégte moo xam ne ndax man bu may liggéeyal Serigne Saliou du ma am sago damay am mbégte am kontante ndax daar jii fi laa nekkoon xel comme damaa bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko sanc yàlla dogal bi ma doonee tout tànk la ma sama waajur jël jox ma Serigne Saliou xaw ma xàmmeewu ma waaw wax dëgg yàlla li ma xam lépp fii laa ko xam ne li ma man lépp fii laa ko mënee moo tax bu ma nekkee ci waañ bi damay am mbégte ak kontante ànd koog sama mbokki taalibe yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu am sawarte Serigne Mamoun Seye nga xam ne moom lañ toftal sama ginnaaw wax dëgg yàlla mooy gérer waañ bi lépp gis ko soxna yi nekk nii ak mbokki taalibe ñu nekk ci raxas mi nekk ci lépp di ko def loolu daal dañuy jox puissance boo xam ne dañuy gën a gis suñu bopp ndax fii suñu dëkk la lu luñ fi deful rek duñ koo amul te ñoo ñaan Serigne tubaa gën ñoo yokk ay xéewal ba nga xam ne buñ ñëwee bis bu dañuy def ay tuuf di ko jox jaam ñi kàddu cant yi moom dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñoom leen bokkal liggéey bi Serigne Touba defal leen ak wér gën leen a defal xéewal ba yéene ji ñu am ak bëgg-bëgg bi ñuy am ñu koy gën a man ndax waañ yombul lu nekk ngay dégg da dagg sa yitte yëpp ñëw toog di jaayante fas yéene doo bëgg ci nii weex xorom da ngay bëgg mu neex ndax bu ci bu ko julli di jotee mën a am xéewal yoo xam ne day day neex leneen li nga xam ne moom lañuy dolli suñu mbokki taalibe yi nga xam ne nag suñu borom dogal na ñëwun dañ leen di dañ leen di xamal ne le Serigne Saliou si jëmmam mooy Serigne Touba lu ko waaye defal teg ko ci loxol Serigne Touba te yàlla dafa dogal bu nit ñëpp bàyyi seen yitte ñëw ci àll bu mel nii nga xam ne Serigne Saliou daan wax naan xel comme ko leeroon naan jullit yëpp ñëw nañ fi mu bàyyi koo woote yow nga ñëw fi sosoo togg aw ak joxe ñam ni mu mel ni mu saxe ci xol nga koy togg ba mu baax yëkkati ko di ko jox jaam ñi ñoo ngi ñaan ñëpp dugal ci seen loxo képp koo xam ne gis nga image bi wala nga dégguñu ñoo ngi ñaan loo man ci ceeb diw xorom ak ay cin lépp nga dugal ci sa loxo te xam ne defaloo kenn ku dul Serigne Saliou yàlla nañu Serigne bi defal ndimbal ak tawfeex suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg yàlla na ko Serigne bi matal ci barke bi Serigne Saliou jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokk yi eh, murid saadix yi nga xam ne yéen a ñuy seetaan fii ci xel kom ci tooli Serigne Saliou mbakki yi sunu mbokki talib yi nga xamni ñoo bayiko ko Dakar fekk suñu fi ci tool yi ñu bayiko ko Touba ànd ak ñum ñew fi ñoo sak ñun ñu waxtaan ak ñi nga xamni ñoo ñi seetaan waxtaan nak wessul dara lu dut soññe bu and ak sante ndax dafa am lo xamni ne ku ko yàlla war nga ko sante baax baax mi nga wara tambalé ci bi yalla yàlla boole ci fi ci coobareem ñu doon ay jul ñu doon ay ay mbindeef te doon ay doomu aadama ndax suñu borom dafa wax ne mboolem li mu bind doomu aadama la ci gën a bëgg muy wala xad karram na bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri ba ay jeex bi yàlla gënee bëgg doomu aadama doomu aadama yi itam ñi ci di jullit lu suñu borom gën a bëgg ndax dafa wax ne kuntum xayru ummatin uxrijat linnaasi ta'muruna bil ma'rufi ñi mu gën a bëgg ci jullit yi nag mooy jullit yi nga xam ne yàlla boole leen ak sëriñ Touba biir ci biir sëriñ Touba itam ñi nga xam ne yàlla boole leen ak sëriñ Saliou ñoom dañoo war a sant bu baax a baax a baax a baax lépp a baax waaye lu gën dafa am loolu yàlla dogal la kon boo xamante ne yàlla dogal na sëriñ bi fab liggéey bi nga xam ne naka jekk ci la nekkoon ba ba ba wuy ji suñu borom tabaaraka wa taala bàyyi nu si loolu war nañ ci sant yàlla baax a baax te saa bu ñu santaanee ñëpp maa si jóg xam ne lii ak ak ak jagle la waaye du caagee nag njàmbaar mënu ko maye ndax coono moom mënta ñàkk ndax suñu borom moo ne laqad xalaqnal insaana fii kabadin kon nag sonn ci loo xamante ne coono bu am njariñ la ku ci yàlla dimbale war nga caa sant bu baax a baax ndax kat mboolem ñi ñëw fii képp ku fi jóge boo delloo ñu ngi bàyyi woon koo ci ne xel kum laa demoon mën a sawaay kon maa ngi lay siyaara kon loolu war naa tax ñu xam ne jëf ji ñu jëf jëf ju baax la waaye jigéen ci jëf yi la bokk te Serigne Saliou daana wax ne lëggeel Serigne Touba day mënees na ko fu ne waaye fii la gënee daana wax it ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi lëggeel Serigne Touba moo ci féete kaw bu ne xeeti jaamu yàlla yëpp lëggeel Serigne Touba moo ci féete kaw dellu waxaat ne lëggeel Serigne Touba mënees mënees na ko fu ne waaye fii la gënee kon loolu lu mat a setantal la ba tax na saa bu liggéey bi jógatee ku dégg soññ bi na nga daal di jóg wute xel koom te xam na loo fa def sa bopp nga koy defal. ñoom ñu ñoom lañu dénk wàlli wàlli jumt yi ñëw nu koy séddalee ak nu ñuy def bay jokkale liggéey yi bañ bañ doon benn moom lañ ñëwoon di waxtaan ak man nii man leen yéen de amul lu ngeen ma sañal laaj ma bañ ko damay ragal sax ni bu ñu àndee ci dara ku xamut dana yaakaar ne far da ciy am waaye loolu mu si am ndax ñun ba ñuy ànd ci daara jee tamit ku ne yaataloon na sa bopp ba ma loo nekk ci sikk mën na la ko wax ci kawe kaf duñ bàyyi nit mukk muy def lu du dëgg ñu bayyi la ko ci légui rek mom nga ñu fekkon ñuy wax fekkon fan yi may waxtaan ak sama bay nan ko dong yi ni jëfé jité euh légui lé da nga dama naan buma ma demoon ak sama bopp momay may mu ne ma bu dé señ bi rek ka tax dé lo ci sonno sonno doyut bu dé nak dara daraja ci bëgg mba lénen lo ci sonno sonno pertement rek nga ciy jële barki señ Saliou li la ma wax bu yagut rek li li la ma wax ay sant nañ la bax ndax ndax yow mom eh, bo gisé yu bari ma bañ di feeñal ndimbal moom damaa xam ni li ñu sëñ bi dimbali nit mënuñoo dimbali lu kopp moo tax duma feeñal dimbalul kenn lu mëdd seen i xéewal xalaatuma ko sax ndax mboolem li ñuy def yàlla xam ne dong donga yi la dinaa ko wax waxaat ko donga yi kese la te yow yow yow mii nag moom nañ nekk woon ci daara ji nam wo loolu dimbalul sëñ bi la waaye daara ji jamono boobu ni mettee mënoon naa demee neneen waaye nag ni ñu demee woon nga xam ne nga xam ne wóor na ma ne ni ñi jàppe woon comme koo bokkal ndey ak te xéetowuñ ndax sa daraja ak cër yi nga indaale te cër yi ñuy fàggu tamit nga fàggu ci lu kawee suñ jort moom moom moom dañ koy dañ ciy sant daam mi yëg keneen fu ñu waxtaanee danañ waxtaan ci loolu te duñ ko fàtte bu mukk te foo nekk dinañ la fa fekk te loo ñu loo ñu loo ñu jàppaloo danañ ko jàpp ñu tere tamit danañ ko baax loolu moom loolu moom sëñ bee ñu ko boole woon ci dama ko daan wax ndax sëñ bi nu la nu la bere woon fonk la moom moom moo xam la ab cër moom wóor na ma ni nekk na ci yow ni nit ñi nattee àdduna ñàkk a nekk ci yow du tee tam danañ la jàpp bu wér wér wér yàlla suñu borom yokk la ndimbal yokk la xéewal sant nañ bu baax nag. ñoo ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant Serigne Saliou si Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu mi nga xam ni moo nu tax daje fii tey di nuyu mboolem mbokki taalib yi ak mbokki jullit yi yu nekkal ci bërëb bi ak mboolem ku ñuy diglu di leen baalu ak di leen ñaanal. te di sakku ci yeen ñaan sa borom gën noo defal ndimbal barke Serigne Touba ñoo ngi leen di leeral tuuti ci li nga xam mo moonu taxa dajal ci bërëb bu tedd bi muy pak bu sel bu mag bu kawé bo xam suñu sunu xam-xam lot na sax ci wax ko kap pak bi sunu ñew ci pak bi jitt na sunu gën ak aduna ngir suñu wayjur xamoon na day ba pàkk bi ginnaaw ba ñu yegsee ba dëgër ci àdduna ñu indi nu fi fi lan yaroo ci loxoy sëriñ sel yi muy yarnu ba def ci ñun li nga xam ne moom la ñuy toppee góor yàlla ginnaaw boobee mu daal di nuy yeewi nu dell ci kër yi ci yitte yi dayoo pàkk bii nag xam gun ko xam moo tax duñ fi doyal duñ ci màndi mukk ba ilaa yawmi diin ñun nag ay jumtukaay yi Sëriñ Tuubaa lañu saa bu nu soxlaa amutun suñu bopp dara moomutun sunu bopp dara loolu yi xam nañ ko suñu diggante ak Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ñun xam nañ ci suñu xam-xam bu néew ni liñ koy toppee du ay jullee ki wor mooy nat asaka ñaqal ko tërbiyewu ko moom la ñuy toppee Sëriñ Tuubaa looloo taxit boole wuñ ko ak dara yemale wuñ ko ak dara saa bu ndigal jubee moomutuñ suñu bopp dara moomutuñ sunu njaboot dara moomutuñ suñu alal dara loolu yi xam nañ ko ci mooy li nga xam ni mooy li dëgg ci am murit mooy liy dëgg ci am murit kon yàlla na saa borom gën a dimbali gën noo saxal ci ak teel bi pàkk bii nag ñi fi daje ñëpp ak njabootu sëriñ Touba lañ muy njabootu Serigne Saliou ñi ci ëpp ci daara ji lañ yaroo ñi ci topp mooy ñi nga xam ni sopp nañ Serigne Saliou jotunoo ñëw ci daara ji waaye mi ngi mel ni ñëw nañ ci daara ji ndaxte danoo jàppoog dong yi def lu leen seen jëm muy benn jëm ñu gëm ni sëriñ Saliou du caagoo na ci daara yi rek lay defar waaye Serigne Saliou am na mu waxam ci ak jëm ci ay dong mu ngi leen woon dama bëgg a dajale àdduna yépp defar leen waaye mënuma leen daje defar leen ma jël seen biir ay nit defar leen tasaaral seen ci biir aduna ngir ma defar aduna kon loolu yi dina firndeel lu bare bare liggéey bi yaakaar naa ni ñun ñoo ko waroon a defal suñu bopp suñ bi nag daa da da daa yéene ñëpp lu baax te xam ne ñëpp day njabootuk Serigne Saliou moo tax mu bëgg yéen ngeen nekk ci di di ci liggéey yéen it gis nañ ci seen pas-pas ndax bu ngeen sañoon lépp yéen a koy defal seen bopp waaye nag ginnaaw Serigne Touba daa njaboote ñëpp te yéene ñëpp lu baax moo tax suñ bi boole leen ci ngeen ciy liggéey waaye liggéey bi ñun la waroon. mën nañ wax ni ñi ngi fi ñëw gaaw di samedi ndaxte ñi ngi fi ñëw guddi gaaw ajjuma ci guddi bis boobee mën nga caa bañ a boole boobaak léegi boo ko xaymaa. day toll ci juróomi fan boo ci dundee aju ñu koy sant yàlla bu baax baax ndax te nekk na liggéey boo xam ne boo ko xayma woon ci nin ko war a liggéeyee dina toll ci fukki fan ak juróom te ñi ngi am yaakaar tey liggéey bi bi wala suba kon loolu yi liggéey bi kawe na njort lool. liggéey bi pas-pas la ci gaa yi am bu ànd ak yéene ju rafet rafet ndax jàppoon nañ ni bu ñu fi ñëw danañ fa am lu mat ay fukki fan ak juróom. wala lu ko jege waaye mën naa ne tool tool yi fii ñu toll ni képp ñu ngi ci ndajalem ndajalem na ngooñ mi moo ci des ba yaakaar naa ne bu eggul tey jii suba dina teel a egg incha allah. tey jii dañuy settali am njeer am bees moo ci des ak roñ gerte ge ngooñ daanaka njeer mi bu soobee suñ borom dina teel a dina teel yegg suuf si kon roñ gerte be ngooñ may des bu oto yi matee mën naa daal yegg sax ci bés bu soobee suñ borom. lu baax bu doon doy. kon biñu ñuy ñëw ci daara ji dañuy fekk seigne Saliou tok di noppalu waye ñun suñ lepp seigne Saliou la mak sama morom yi fa nekkul ak yeen ñi nga xamni yeen ñu fekk su fekkone ne lu bax dana doy kon Cheikh salif mbacke kon dañ ko fekk muy ko xamanteni ni dafa war tok ni man lima jëf doy na biko bi fi suñ borom kéro bi ko suñ borom jëlee ci àdduna mu war dem noppalu ji course gi mu doon jaamu yalla ci loxoom lañ ko nango kon war nañ jé dégg amul kenn ko xamni war nga noppalu lu bax dul doy lu baax du doy mukk kon saa boo xamante ni ndigal jëm na ni ñëpp jëm jëm ci jëm ci jëfe-jëfe ji ko lii de lim may lim may dolli daf may gën a ñaax ci xam ni mu ma dara ci sama bopp saa su ne jumtukaayu sëriñ bi laa saa bu ma soxlaa damay delluwaat ci ay loxo halaktu bi rabbil maq jëlal ma jëwal amee المدح الذي أنسى mbokki dongé yi ak soppe yi ñing leen di nuyu ci turu sëriñ bi sëriñ bi mo ñu wo dañu jotle ay kàddu yo xamni da jëm ci waat ci ñun mbolo mi ginaaw biñ ñu lim ñi digëlon ci anam yëm gëna a té te lépp doon kàddu ciant kàddu ñaan kàddu yi ngërëm mi diko tek ci seen loxo ñu jottalee ko ñëpp ñi nga xamni ñun ak ñom ñoo bokkon liggéey bi sëriñ bi daf ni mu ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal ndax barab bii waroon na fee teew waaye mën na fee bañ a teew yi tamit ndax kenn la ci ñun mbo ñi nga xam ni daa mel ni bu fa teewut wala gisuñu ko mu wàññee ci ñoom seen pas-pas nee na bokkut ak suñ mbooloo mii ndax xam nañ ni mu teew ci ñun ak ñàkk teew rek a yam du wàññi ci pas-pas bi dara ndax li ñuy def yalla rek tibi tax ak yonent bi ak jëmmi Serigne Saliou mi nga xamne ñun ak mom rek ñoko bok li jitu lol nak dana mi ngi jital ñaan yek cant yek ngërëm yi dal di wax loolu ne nak mbolo mu mel ni and di dox ci jup ak ci lu leer war nañ ci muslu setané bu baax ndax setané mbolo yu mel ni da ci wutu porox ndolo ngir xol num leen xajjat le ci xalaat ak gis-gis neena na ñaan gi nak li ci gën moy lu ñuy def nañuy dox nañuy japp ni yalla nga ñuy gis wa abdullah ka annaka tara dani boy def defal yalla nga baye xel ni mi ngi lay gis bo amé ci mom kumpa tamit amut ci yow kumpa serigne bi tamit non rek la li ngay def bu la gisee bu boko ko gisut mi ngi lay gëna gëna gis nga baye xel lool bu baax wax na bu baax i tamit ni yim ñuy sant mu ngi rafet lu jëf ji ak góor góorlu gi waaye nag nañ ciy moytu bu baax ci defeen wi te defeen wi mooy bëgg lu ko doxal ba nga koy sàkkoo ci xoo ko ñoo xam ne jaruñu ko wala boog yëllu ci ñoom ci lu mel ni internet dafa xew ak yu demee yooyu ba di ko tasaare ci nit ñoo xam ni jaruñu ñu ciy àgg moom daal di mu wax mooy lu mu digle nañ ko def bu ñu joxañee ne nañ yalwaani tamit nañ yalwaani te xam ne ca yalwaan bala sunub cër di ñëwee waaye lim ñi digal képp moo ñuy jariñ lim ñuy tere rekk tamit moo ñuy wàññi bi mu noppee laa ko ne ñaan gi moom ñu ngi la koy ñi ngi la koy defal ndax dañoo jàpp ne jataay bii ci xel comme ñaar am na ci benn bi ak cant la gu jëm ci yéen ñaareel bi ak fàttaliku bu la goo xam ne day nekk ci donge yi ñu fi fekk si ndax ñun ñëpp jëf ji nga ñu digal ñu di ko def ni ci suñu xol sedde ñu ci ñaan leen suñ biir lépp ci yow la jiitu ba noppi fàttali gi tamit moy ñun ñi fi joggé won ñew di sotal li dana dalal xelum ñi fi nek bañ xamni ne yàgg fi du indi tardement bu buñ fi joggé dana nga ne man nañ fay joggé bay sotal lu raw li ñuy sotal mu bekk ci wax joju lool santat ci yalla lool ñaanat ci yalla lool kon dal wax ji gudd gi ak bari gi lim def moy sant na len gërëm na len ñaanal la len yalla nak ni lay jëflanteeg doomu aadama kum jigel bopam yow lay gëna tek ku mu fonkal boppam mooy ñi koy gën a sor fi mu toll nit yàlla yii rek daanaka koo dégg gis ma naan gént naa sëñ beeg feeñu na ma benn da ngaa nekk ci sofaan moom mu bëgg la caa dindi mbaa nga lott ci mbir mu bëgg la caa dimbali waaye nit ku jaar fa nga war a jaar dëgg mën ngaa sonn loolu ci gént gis sëñ Tuubaa doo ko mën a gis loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax comme yéen a ngi ci yoon wi ñu ngi ci yoon wi nañuy rafetante njort tey diisoo tey dogalante ngànt ñun ñëpp sëñ bee ñu yar de te ku nekk moo def ci yow li li mu def ci yow te it kep ku ñu ko mané ñun jappal ni ab dong la ndax ab dong ku mané ak ñoom rek moy yaangi dox ci li nga war dox kaddu yi dal señ serigne Sall señ Alaaji Lo ci gattal señ bi yonne na kaddu yi cant kaddu yi ngeureum di sakku ngeen ñaanal ko neena na mi ngi leen di ñaanal bu baaxa baaxa baax mi ngi sakku tamit ngeen ñaanal ko bu baaxa baaxa baax señ bi daf ne nak legi bu ñuy delu nu ñu ko geeri won liggéeyal eh, nitu yalla comme ñaan guerre julit ñu daan def ak ñi julit ba gagner bay ñibbi benn da ngay sant yàlla mbaa ngay sàbbal yàlla waaye buñ nu ku jóge ca barab ya ñuy fowee di tëgg ko yuuxu ak defu sofaan loolu moo ko ci wax mi ngi ñaan nag ñëpp ku nekk ci ñun na la yàlla sàmm ba nga dellu fa nga jógee woon ndam rek la ñuy yokk sëñ bi ñaanal bi